هم سليمان بزرفي هم زيارتي كيما تقول زمامي لغزياتي محمد سليمان بسلفي هم سياتي كيما تقول زمامي لغزياتي عدا إذا استال قلبي حسن باجتها وواجه للعدايا بالمبرات عمسا تجيب نفسي كي أميل لها وحاولت ميل قلبي للعديات وقد مني بما وتارة ليادني بالقلب

به وتلمر قدما في المولات فوت ألقى إلى من لا يدخلني به جنانا هوى ndeysaan Mbàkke Aram nee na tudde kon tuddee na ko Mbàkke Aram

ne kii du bàjjenu xale bi abi bàjjanu xale bi jërëjëfe sëriñ Touba. jërëjëfe sëriñ Touba. jërëjëfe borom Touba. jërëjëfe borom Touba. jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul. jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul. jërëjëfe Teeti. jërëjëfe Teeti. Cheikh Ahmadou Kra ndeysaan Kara taalibe sëriñ Modou Kara Noreyni la moo ci topp di daw nii ndeysaan jaajëf siyaar nañ leen de